ay atam tollu si juróom-ñaar fukki ak juróom doon tamit gëstukat si jafe-jafe askan wi ba sax jot see binde ay téere laata rek muy dem retraite. man maa ngi tuddee donc si faculté de médecine et de pharmacie d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et du centre hospitalier universitaire, le Dantec, c'est ophtalmologie, où j'ai officié jusqu'à l'âge de 65 ans. Bon, avant ma retraite, hein, à mes heures je me livrais de l'écriture, que j'aime beaucoup depuis l'enfance, des poèmes et puis des ouvrages que j'ai rédigés. am na temps yoo xam ne nag Euh, di gëstu di euh, réfléchir ah, di xalaat si problème dëkk bi problème façon yëpp si problème non seulement njàng mi non seulement affaire faj mi mais également affaire économie affaire société donc yooyu yàlla ndig mayoon na si ma xereñ tuuti di ah, si gëstu bu baax a baax bu di wax loo xam ne peut-être ñëwagul pour di wane. nii la ñu war pour que dëkk bi avance si parcours am nag moom visionnaire bi li di Alassane Wade jot naa bind tamit ay article de presse ak i poème laata sax muy bind ñetti téereem yi li di la grande débrouille l'islam et le monde moderne ak virtuosité virtuelle ñetti livre yi mu bind actuellement bon mooy bu njëkk bi mooy la grande débrouille nationale mu ngi nii alors mooy la grande débrouille nationale mooy euh, dëkk boo xam ne ku si nekk rek da ngay euh, nu mu di takkale di euh, def lijjanti comme góorgóorlu ah pour mën a assurer dépense quotidienne parce que jafe-jafe nga nekk bon loolu nag mu nekk si réew mi bu parce que ñëpp ah di def loolu parce que soo deful loolu xëy na doo si génn. moo loolu mooy livre bu njëkk bi mooy bu bii ñu wane si alors gis ngeen xar yi ñu nekk di euh, lakk foofu si booru assemblée national si gazon boobu nekk foofu kooku du photo boo xam ne trucage la man maa ko jëlal suma bopp doon dem euh, hôpital gis loolu ma daa ko gis toujours ma ne daal kii daal ko photographier peut-être xëy na un jour dinaa ko wane mais pour wane dëkk bi daal li xaw lii li xew xaw li fi am dafa xaw a nekk ndox pagaay wala sa ëpp na pagaay. waaw mu nekk premier livre bi. Euh, deuxième livre bi léegi nag moo bind ko si affaire lislaam l'islam le monde moderne wax affaire suñu diine bi l'islam ax euh, jamono léegi alors nuñ war a mën a àndee parce que soo xoolee am na ñoo xam ne dañuy mel ni ku wax ne l'islam ax jamono bu léegi ànduñu. alors dañu euh, opposé wu ah, déedéet moo wax ne d'accord xëy na l'islam l'islam bi mu ah, ñëwee si adduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bon am na junne at bientu junne at ak ah, juróomi téeméeri at mais euh, bi mu ñëwee léegi donc yàgg na waaye nag yonent bi yàlla man ko gis-gis di ko wax yu bëri yoo xam ne moom la Euh, nit ñi wala euh, def wala euh, dundee wala jaamu yàlla pour seen adduna neex pour préparer seen alaxira donc loolu yëpp ah soo gisee l'islam alors di régler affaire dund jullit bi mu juddoo ñu di ko tudd bu alors kër baa ñu koy denc mu gaañu génn adduna ñu di ko denc yooyu yëpp l'islam daf si wax donc mooy loo xam ne yoon bu ñu tracé boo xam ne tamit su fekkee gëm nga topp ko en tout di nga si gis euh, euh, njariñ lu baree bari alors tamit waaye nag comme jamono dafa dem bu yu bari jaxasoo alors l'islam am ñeneen ñu su buboo di def yoo xam ne xëy na du vraiment l'islam dëggantaan ah xëy na seen affaire intérêt bopp la seen njëriñu bopp affaire politique ak yu noonu bu mujj gi tamit di def yoo xam ne di reyante di sànni bomb si euh, euh, jumaa yi mosquée yi di jullit ne lu ngi koy def si turu lislaam loolu tamit euh, tey na xam alors ma bëggoon si wax pour rek wax ne suñ gëstoo jàng bu baax lislaam dañu xam ne lislaam buggul affaire violence buggul i reyante ñetti la livre bi moom affaire poème la i bayit donc il mel ni way bayit et cetera loo xam ne ah, euh, jamono ñëw ah, nga am loo xam ne bànneex la nga wax si nga am naxar nga wax si nga gis ne loo xam ne jaaduwul nga wax si loo xam ne lu baax la nga wax si. auteur bu ñetti téere professeur Alassane Wade laata rekk muy jóge faculté des médecines pharmacie odonto stomatologie si daara bu kawee bile di université Cheikh Anta Diop ak tamite ci hôpital Aristide Le Dantec jot na formé sax ay ndongo ba ñu amee seeni ay lijaasa. bi may liggéey am naa ñu bari ñoo xam ne ah, jàngale naa leen formé naa leen. non seulement si Sénégal mais également si Afrique non, francophone subsaharienne bon jox leen lijaasa bu ñu bëri nekk nañ kilifa si seen dëkk yooyu si fànn boobu alors suñu liggéey tamit dafa ne woon non seulement da ngay jàngale da ngay fecc mais da gëstu xam-xam tamit donc loolu nag partie gëstu xam-xam bi moom euh, xamuñu ko bu baax mais ne woon na lu am maanaa si suñu liggéey bi. noonu sax la moom écrivain bi la di yëgle cérémonie de présentation dédicace ñetteelu téereem bi la di virtuosité virtuelle juróom-ñaari fan weerum octobre foofee ci Harmattan bu ñeenti waxtu jotee ci ngoonu tombe ak ñaar fukkeelu téereem bu njëkk bi la di la grande débrouille. cérémonie bi mu ngi am si librairie Harmattan ñuy jaay livre yi si euh, VDN bi soo jógee euh, biir Ndakaaru mel ni koy jëm euh, foire bi alors sooy dugg VDN bi rek voie de dégagement nord si foofu la si sa ndijoor si soo dépassé pont bi alors en face Mermoz bon foofu tamit ñu ngi ko fay def samedi 7 euh, octobre euh, donc 2023 si 4 euh, heures si ngoon en 3 heures de demi nag ñu commencé di toggal nit ñi di dalal nit ñi et puis bu boobaa ñu def cérémonie bi foofu alors léegi nag dañ gis ne yi xam ne dañ ko si wax si livre poème bi recueil poème bi alors dafa diggoo li livre yi yi xam ne bindoon naa ko Euh, thèmes yi ñu si wax yëpp ah day dañuy xamal dëppoo dañuy ànd alors bu baax donc euh, comme que le 7 octobre mu ngi coïncider ak livre bu njëkk bi bu mu euh, bi ñu ko publier Paris ah mu nekk ñaar fukkeelu ñaar anniversaire bi donc mu nekk occasion pour en gisaat revisiter livre yooyu. plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient dû